nee ñu troisième mandat du am te opposition bi moom duñ ci ànd waaye ñu ànd ak président ma Sall ni ki tey daanu ko daganal nay leer polémique doxoon na ci diggante Ismaïla Madior Fall mi ak Mary Teuw Niane tey ci assemblée nationale nag député yi nar nañu koo dëggal tribune yéen kaay ne ma diggante Ismaïla Madior Fall ak ñoom ndax nag tey ji du ñu may Ismaïla dara waaye ragal naa it Ismaïla it du leen may lenn tribune yéen kaay ne ma xanaa ñu fàttalee ci président Macky Sall article 27 bu constitution bu réewum Sénégal rek kenn mënta tegle def ñaari mandat réew mi président Macky Sall ma ngay charmer waa biir réew mi de fas yéene nag tàmbaleeti moom président Macky Sall conseil des ministres décentralisé yi le témoin yéene ka nemmeeku tour moom président Macky ma ngi ca tàggatoo tour waxtu woo xam ne ca assemblée nationale moom Ami Ndiaye ñibbi ci l'observateur ma nga naan la mu def moo tey mu def ko gisul kenn ko xam ne jaral na ko mu koy jéggalu Ami Ndiaye ñibbi naan noppalu leen seen intimidation yi faalew ma ko la ma wax sëriñ ma wax ko sut ko di jéemeel ni ku naan maan yi tey ngi nii de nga xam ne ko ci sergent enquête suusalee la ndax ko ci ba dafa yàqu te sax ca kaw néew ba gisuñu ca benn violence boo xam ne def nañ ko ci kaw koor bi alluntin africa jom seen mel ni ku lu ngeen ca xam autopsie ko xoolu ko kon dëgg ji moom mënu ko xam Alassane Seck bu Ligue bu droits humains xam ni gars daal dañoo mel ni ñu yore xale rek mel ni ñuy naxi bébé rek ma ne la ñu ñuy gëmloo mënta nekk dafa tey xel lool buñ ko bëggoon dafa mel ni mën nañ ko Sud Quotidien daal di may xamal ne du France la jël royukaay référence moom France ci boppam dama leen di fàttali rek autorité yu réewum Sénégal xale bu góor bi Hugo Touré la tuddu ñaar fukki at ak benn la am 16 mars 2020 dafa réer ci ndox mi juróom-ñetti fan waaye nag gannaaw bi nga xam ni génne nañu néewam autopsie lañ ko defal ci lañ xam ci yan anam la daal di faatoo bu ñu nee nag Fulbert mii nga xam ne daa daanaka matalul juróomi fan ci ndox mi mënuñu koo autopsie xel da cay daal di teey yéeni kaay bi ne ma parquet bu Ndakaar day xamle na ni violence amu ca dossier bi nag ubbi nañ ci ab information judiciaire waaye ba nii ba ni gars nee ñu daal dañoo lab critique yéen kaay mel ni ku naan man Sénégal neexee na nu ne de face to face diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr war a am juróom benn fan ci weeru décembre source a daal di may xamal ne wuy ji rek Ousmane Sonko mënta def lenn lu dul dem wuy ji bi onze heures lañ ko woo doyen des juges nag moo ko woo moom jiital Pastef ka ko doon maase di Adji Sarr ak seeni avocat yëpp jot nañ seeni convocation bu wuy jiwul maam Diallo moom Ousmane Sonko mën naa am kaay naan man en tout cas Ousmane Sonko ki awokaam ak ñëpp ñu bokk ci dossier bi te wara a wuy ji daal dinañ leen di jébbal seeni convocation te ña nga tàmbali nag di filtre ña nga xam ne ñooy dugg ci bureau maam jàllo bi am déet le quotidien le quotidien daal di may xamal ne beneen feuilleton ci coowal suite boutique yi l'observateur naan man face to face boo xam ne dana ànd ak danger de ndax Ousmane Sonko ak Adji Sarr bu nu jàkkaarloo ci biir doyen des juges dara du yomb Walf Quotidien ne ma waxtu ña ngay def ay contrôle yoo xam ne doy na waar lool di roqi alalu askan bi war a janoo it ay député yi nga xam ne ñoo faroog moom xëccoo nag dana am de ndax ñii nee ñu troisième mandat am te opposition bi moom duñ ci ànd waaye ñu ànd ak président Macky koo a kaay ne ma diggante Ismaïla Madior Fall ak ñoom ndax nag tey jii du ñu may Ismaïla dara waaye ragal naa it Ismaïla it du leen may lenn tribune yéen a kaay ne ma xanaa bu constitution réewum Sénégal rek kenn mënta tegle def ñaari mandat ci réew mi lii ko di jeene ma monte day président Macky Sall ma ngay charmer waa biir réew mi de fas yéene nag tàmbaleeti moom président Macky Sall conseil des ministres décentralisé yi le témoin yéene kaay ko déet tàggatoo tuur kay la président Macky Sall fas yéene soobu bu Sonko nekkee ci nemmeeku tuur moom président Macky ma ngi ca tàggatoo tuur waxtu woo xam ne ca assemblée nationale moom Ami Ndiaye ñibbi ci l'observateur ma nga naan la mu def moo tey mu def ko gisul kenn koo xam ne jaral na ko mu koy jéggalu Ami ñibbi intimidation yi faalew ma ko la ma wax sëriñ Moustapha ma tey ma wax ko Sud Quotidien mel ni ku naan maan yi tëyaa ngi nii de enquête ba nga xam ne def nañ ko ci sergent Fulbert Sambou enquête suusale la ndax moom Fulbert mii jébbal nañ ko boromam ni ki barki démb waaye amul autopsie boo xam ne jaar na ci moom moom procureur de la république ne ko néew ba dafa yàqu te sax ca kaw néew ba gisuñu ca benn violence boo xam ne def nañ ko ci kaw koor bi Alioune Tine mel ni ku naan leen lu ngeen ca leen ko xoolu leen ko kon dëgg ji moom mënu leen ko xam leen ni gars yi daal dañoo mel ñu yore xale rek mel ni yi ñuy naxi bébé rek ma ne la autopsie bii ñu ñuy gëmloo ne mënta nekk dafa tey xel lool buñ ko bëggoon dafa mel ni mën nañ ko Sud Quotidien daal di may xamal nañ du France la ñu jël royukaay référence moom France ci tali rek autorité yu réewum Sénégal xale bu góor bi Hugo Touré la tudd ñaar fukki at ak benn la am 16 mars 2020 dafa réer ci ndox mi juróom-ñetti fan waaye nag gannaaw bi nga xam ni génne nañu néewam autopsie lañ ko defal ci lañ xam ci yan anam la daal di faatoo bu ñu nee nag Fulbert mii nga xam ne daan cay daal di teey yéen kaay bi xamle na ni violence amu ca waaye terewul dossier bi nag ubbi nañ ci ab information judiciaire waaye ba nii ba nii jàpp ni gars yi nee ñu daal dañoo la critique yéen kaay mel ni ku naan man Sénégal neexee na nu ne de face to face diggante Ousmane Sonko ak saar Sarr war a am juróom benni fan ci weeru décembre source a daal di may xamal ne wuy ji rek Ousmane Sonko mënta def lenn lu dem wuy ji juge bi onze heures lañ ko woo doyen des juges nag moo ko woo moom jiital Pastef ka ko doon maase di Adji Sarr ak seeni avocat yëpp jot nañ seeni convocation bu wuy jiwul maam Diallo moom Ousmane Sonko mën naa am mandat de dépôt l'indépendant yéen i kaay naan man en tout cas Ousmane Sonko ki ak ñëpp ñu bokk ci dossier bi te war a wuy ji daal dinañ leen di jébbal seeni convocation te ña nga tàmbali nag di filtre ña nga xam ne ñooy dugg ci bureau maam jàll bi am déet le quotidien le quotidien daal di may xamal ne beneen feuilleton ci coowal suite boutique yi l'observateur naan man face to face boo xam ne dana ànd ak danger de ndax Ousmane Sonko ak saar Sarr bu nu jàkkaarloo ci biir doyen des juges dara du yomb Walf quotidien ne ma waxtu woowu ña ngay def ay contrôle yoo xam ne ruqi àlalu askan wi impôt et domaine di ko def nag fas yéene nag dugal ko ci gafaak nguur gi di suuxal ay entreprise l'observateur naan maan ñi xaar location bi wàññeeku day baye boo gul ab décret ab loi la bëgg loi boo xam ne dina sàmm locataires yi xeex ak courtier yi waaye tam defanteeg bailleurs yi libération yéene kaay ne ma boobu waxtu ña ngay caxat-caxatee alalu askan wi ci anam woo xam ne dara mustee jaar yoon audit yoo xam ne def nañ ko diggante 2020 ak 2021 ARMP def ko yéene kaay bi ma banxal sa baaraam puma moom lu toll ci ñetti milliards yoo xam ne teg na moom la nu jaay te amul benn contrôle ci tur woo xam ne nee ñu secret la musa Sow mi nga xam ne moo jiite commission marché bi daal di jël ay entreprise am nag jox leen marché bi deer nag moom fa la lekk gu metti gi amee juróom-ñaar fukki million ak fukk ak juróom jébbal nañ ko Atepa ci marché yaa ma neex les éco yéene kaay ne ma ab moniteur enregistreur boo xam ne jarul quatre cent mille ñu facturé ko fukk ak juróomi millions ca deer la ame libération yéene kaay ne ma dikkaatal ca man moom Soham Wardini ñaari milliards ak ñetti téeméer juróom-ñeent ñeenti millions yi may xel tey te ca vérificateur yi fu alal joojee jaar secrétariat général bu gouvernement bi ña leen di jiiñ luubal ca maire bu Ziguinchor ak bu Pikine ñaari Abdoulaye Ya Baldé bi bi ñu daal di leen di niib l'enquête quotidien na ma ca Covid ba gars yi tamit profité ci lekk nam leen neexe pharmacie nationale d'approvisionnement ak ministère de l'éducation nationale daal di nañ leen di niib FONSIS ak collectivité locale yenn it ñu ni leen nii libération yéen kaay na ma fii daal ARMP nee na AGEROUTE bi nga xam ne Cheikh Issa Sall moo ko jiite université ba ñoom la ñu gis ne amul lenn loo xam ne réeroo nañ ceeg marché public las yéen a kaay naan man boobu day ndakaaru yeewu leen si buru bi mi ngi ni xuus ci réew mi turbine yéen a daal di jagleele fii ci Sénégal taux de prévalence bi daal di wàcc ci téeméer boo jël daanaka matul benn le soleil yéen a yoo xam ne ñi ngi lor seeni doom demuñu defi test wàllu ko xale yi saa si tembe bari na xale xam ne ñi ngi ci réew mi di dund ak wopp ji si daate seeni mbokk ñoo leen ko teg alerte yéen ne ma ko gis ne nit ni ne yéen a ngi de papa aale ña fas na yéene nag soobu ci grève de la faim ndax papa aale nee na dañ koo tooñ tëj ko te ba nii na gouvernement gu Sénégal waxul lenn ci dossier am réew mi ko di naan man daaneel ak man ma xibaar la ni mariage bu doy waar moo amoon xeexoo daal di cay mujjee ñaar ci sandar mu ñu daal di leen di gaañ juróom ñoo xam ne jege ñaale lool yu marié bi la ñu daal di leen di jàpp saa si tembe ak lu mën a am mbokk yi nañu ñaan jàmm te yendoog jàmm